na ñoo xam ne poussé nañu la réflexion ba ci euh, fa ñooña nekkoon transhumé euh, hold up électoral wala lu ni xeetoo mën na faa am pour que ñu mën ko justifier euh, moo tax ñu nangu ñooña ñëw fekk si leen est-ce que yow dem nga ba ci xalaat loolu. du ñàkk du ñàkk xëy na lu ñu mën a xalaat la parce que nit ki moom su fekkee ni ñàkk na jomm bu fekkee dafa ñàkk jom ci amul dara loo xam ne nii ay ay eh, ngor moo ko téye wala ci li nag jàppal ni rek loolu nag mën na koo def parce que kii kii ki nga xam ne nii moo day jub bu weetee day jub bu bu bu àndeek nit ay nitam day jub. Hmm. Ah, wéet du tere du ko taree def loo xam ne nii du du ngoram. ndax mu ngi jàpp ci yàlla sama borom fu ma nekk rek mu mi ngi may gis kon man li nga xam ne nii mooy ngor ci man ak li nga xam ne moom laa dégg ak sama bopp ak mm. askan bi ci loolu rek laa mën a taxaw waaye am na ñoo xam ne nii falu ak nguur jaral na leen lu nekk. Mm. jaral na leen lu nekk génne jaasi jaral na leen ko xeexoo jaral na leen ko xiiroo jaral na leen ko. Mm-hmm. sàcc jaral na leen ko wax tey ëllëg wax tey wax tey ëllëg wax tey wax dara tey. ëllëg nga génn ci ëllëg nga génn ci tamit jaral na leen ko kon ñooñu. doo xam doo xam doo xam loolu leen di def ak ay nit la parce que nit ku nitewul day daal di doon leneen ca politique nag bu fekkee dañ koo bëgg a defar ci ngir njariñu askan bi ngir niteel nit ñi il faut ñi koy def nekk kon ñoo xam ne ni leen li seen li leen soxal rek mooy loolu doon ay nit ngir niteel nit ñi seen coalition jàmm ak njëriñ lan mooy ay priorité am ca assemblée nationale première majorité suñu priorité ci assemblée nationale mooy que nañ ko waxee sànq ci assemblée fi na nii réew mi ba ba fi ñuy waxee nii amul budget boo xam ne ni moom lay doxe ndax euh, bi ñu ñëwee dañoo tas assemblée bi budget bi kenn voté ko déclaration de politique générale amul kon réew mi war naa am budget boo xam ne ni moo tax jàmm ak njëriñ daal ni moom daal buñ accès ci ci assemblée bi li ñu war a def sans débat mm. mooy ñu voté immédiatement ah le budget pour que ñu xam ni kat lii mooy budget bi gouvernement bi mën a def liggéey boo xam ne ni poser ay actes yoo xam ne nii njariñu njariñu réew mi lay doon loolu mooy li nga xam ne nii mooy la priorité numéro un ci wàllu santé gis nañu ni jigéen ñi ak nda ak ak seen ay doom yu ndaw bébé yooyu am na ci ñoo xam ne nii mortalité bi dafa dafa bari infantile dafa dafa dafa dafa kawe naka lañuy def ba voté ay loi yoo xam ne nii ñooñu nga xam ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw ku ci am ku toll na parenté bu toll noonu nga xam ne loolu dal na ko naka lañ lay jëlee en charge entièrement ngir mën laa sauver nga mën a sauver aussi donc say doom mm. ñi nga xam ne nii ay mag lañu ca tamit nekk ci situation de précarité boo xam ne ni xëy na mënaluñu seen bopp naka la ñuy mën a voter ay loi yoo xam ne ni couverture maladie bi nga xam ne nii dafa war a am ñoom ñu jox leen ko ñu am ko ñu defal leen ko defal ko aussi jigéen ñi nga xam ne nii. Mhm. nekk nañ ci tolof tolof yooyu ca mënuñoo mënu mënaluñu seen bopp. et que donc ki leen war a mënal rek mooy état bi. Mhm. loolu nekk na projet de loi yoo xam ne ni aussi war nañ ko voter. Mhm. pour ñu proposer ko au niveau donc de l'Assemblée nationale. projet de loi yi nga xam ne nii moom la jàmm ak njëriñ bu leen joxee maj li ñu war a proposer ngir njariñu askan wi. tënk nañ ko. ci contrat de législature. mais contrat de législature yooyu kenn gisu ko. ay wax rek de la askan wi jot ci ñaar fukki fan yi campagne yi. gisoo contrat de législature. ñu bari it gisuñu ko. non yow laa wax yow. man gisuma seen contrat de législature. déedéet kay laay lay loolu de moom moom sam loolu de man bokk naa ci li tax ah. <laughs> ah waaw ah, man bokk naa ci li ñu xam ne de parce que waroon na laa yónnee ba ma ko jotee rek waroon naa la yónnee contrat de législature bi. parce que mm. am na tasaare nañ ko. am na profession de foi. am na contrat de législature ay profession de foi nag la askan wi gën a jot. waaw am na contrat de législature. am na profession de fois dinaa la ko yónnee léegi nii. am na contrat de législature am na profession de fois am na programme de campagne am na sax contre programme de de campagne kon loolu yëpp tënk nañ ko ci pôle li nga xam ne nii moom lañ créé ci biir jàmm ak njariñ mm. ñett pôle yi ñu créé yëpp ñu liggéey ci loolu euh, càmbar ko génn ko jox ko. Euh, Amadou Ba fépp foo dem ca campagne bi. Hmm. programme boobu ak contrat de législature ak profession de foi boobu moom lay tënk di ko di ko campagne mais Sénégal sax farataalu ñu ay programme parce que li ngeen di waxanteeg askan wi ci campagne ñaare yéen politique yëpp laay wax bu ngeen yeggee ca la ngeen doon wut da ngeen cay génn jël seen yoonu bopp. du ma ni lii loolu du ma ni loolu amul loolu am na dëgg la politique yi bari nañu di waxe loo xam ne nii comme ni ko gars yi waxee ñoom seen oto day fay rek ñu leen kaay leen puus ba ñu puus leen bu tàkkee ñu fàtte ñu ah loolu moom am na mhm. et parce que comme mooy li ma wax ci njëlbeen rek xam nga ñi ñëw ci politique ngir seen bopp euh, dafa bari ñi nga jàpp ñi jàpp ni politique daal mooy yoon bi gën a gaaw mhm. ngir doon dara ah bari na lool loolu moo leen indi ci politique waaye nag ñun dey ah ba ñu nekkee ci politique ba ndëgën ni li ñu soxal daal mooy askan bi moo tax ba ma laajee ci njëlbeen. Mm. liste yi naka la demee est-ce que gis nañ ci suñu bopp ma tantul ni la wax dëgg de. ba ñu mm. dalee politique ba ndëgën ni li ñu gën a bëgg mooy askan bi di gis boppam. Mm-hmm. ci politique yi nga xam ne ni mooy dox ci réew mi. et bu doon suñu bopp rek parce que euh, kenn ku ci nekk xëy na yàlla euh, fàttewu la alhamdulilah. kon li ñu soxal mooy askan wi fexe ba daal solidarité mën a am ci biir askan wi ñu am politique yoo xam ne nii politique sociale lay doon équité yu wër wër ci wàllu ndox ci wàllu courant ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu yëpp fexe ba nga xam ne ni ñoo bokk ci réew mi te yewwoo ci réew mi ñu mën a gis seen bopp ci li nga xam ne nii moom la état du Sénégal donc di doxal mooy politique publique ci biir réew mi. donc yéen seen contrat de législature bi ak seen campagne euh, seen programme de campagne bi euh, askan wi mën nañ jàpp ne bu ñu leen joxee majorité moom ngeen di doxal ca assemblée nationale. moom la ñuy doxal amu leen benn agenda caché. <laughs> xaw ma luy agenda caché. Ah parce que agenda caché doo ko wax. waaw ku dem ko am doo doo ko wax waaye li ñuy wax waaye li ñuy wax <laughs> li ñuy wax sax nekkul loo xam ne nii du lu mënta nekk parce que am na programme yoo xam ne nii da nga koy wax waaye mënta nekk mhm. kon bu ñu étudier réew mi euh, xool réew mi euh, tête de liste bi di premier ministre amadu Ba nekkoon donc ci état bi mhm. nekkoon premier ministre nekkoon ministre des finances donc xam bu baax a baax réew mi fan lay mettee réew mi fan la ne nii kat mën nañ leen a bañ a defal lii ci liñ leen waroon defal nañ ko yóbbuwaat feneen ndax ñoo ñoo gën a soxla xam na loolu ndax ca dëgg-dëgg et homme d'état la et bu fekkee loolu am na kon li ñuy càmbar ci réew mi war nañoo xam lan fan lay méttee ak lan mooy jafe-jafe yi ba ñu war a mën cee indi ay saafara kon saafara yooyu ñuy indi mi ngi mi ngi mi ngi ko teg ci li nga xam ne nii jaxran mooy jafe-jafe réew mi. kon nekkul loo xam ne ni lu ñuy xalaat di ko wax. waaye day nekk loo xam ne nii ci jaxran lu ñu war a a réaliser la. Mm. réalise et mais li ci jaaxal ñenn ñi man ci laa bokk mooy opposition bi fi jógee barki démb bàyyi fi problème yoo xam ne ba tey ñu ngi koy dundoo naka la mënee ñëw tey ne bu ngeen ma joxee majorité naa saafara yooyu problème te nekkoon fukki at ak ñaar ci boppu Sénégal teewul jafe-jafe yooyu nekk fi. comme yan jafe-jafe. bari li ñuy jàmbat yépp ci ndaw ñi.